waaw asalaamaaleykum say senegal maa ngi nuyu ñëpp soo sekk maa ngi ziar bu baax dégg naa seen waxtaan waaye nag gis nga lii gaa ñuy wax mënee su koo ñàkk wax de barki alxuraan mënee su koo ñàkk wax xam nga lu tax mu Fall Kalle déglu naa ab wakaalam sànq wax na ko ci benn group mu ni sëñ Bas Poroxaan lañ yónni woon bi situation ba critiqué ci Macky Sall fexe na ba yónni kilifa yi diine ñu ñëw kilifa yi diine kenn woowu leen ci de Macky Sall moo leen ci dugal ñoom it ñu nangu cee dugg dugal ci seen bopp ñëw intervenir ñaanal Macky sàll ba ko Sonko jekkoo ñu fexe ba sonkoo bàyyi ko ñu ne ko danañ waxtaan affaire yi delluwaat ci normal waxal li nga bëgg sonkoo wax la mu bëgg daal di bàyyi affaire yi mu dellu normal nekkete ba mu bàyyee dañ doon nax Sonko mu mel ni kon kilifa diine yi dañ cee ànd ca nax ga complot ga nax ko mu bàyyi ñu bàyyi ngóor si muy defaroo ko wut doole di defaroo ko wut doole di defaroo ko wut doole ba jekku ba am ngànnaayam yu doy ñëw bett ngóor si li nga xam ne ni ku ne xam na ne lu bett la bi mu bettee mu ñëw def li muy def ba jekk Sonko këral ko ba toog ci kawam yor paaka ñoom ñu mel ni yëguñu la xew ku la wax ni yëguñu la xew waxut dëgg lii xew lépp yëg nañ ko ñii faatu yëg nañ ko ñii dee ci géej gi yëg nañ ko Sonko min jekk ba dugal ci kaso bi yëg nañ lépp léegi nag ginnaaw daa jekk woon démb ñu ñëw atte ko nax ko ni ko bàyyil danañ reglewaat waat affaire yi ba ku ne nekk ci sa jàmm ku ne li nga war a def nga ne léegi defuñu loola seetaan ban kooko wut doole ba jekk kii toog ci kawam ñu ne patt pataaral mel ni ku ko yëgut faaw nit ñu wax ko gis nga bu ko nit ñi waxee ci groupe yi ak buñ ko ci waxut la ñuy waxtaane ci mbedd yi moom la ñuy waxtaane Touba moom la ñuy waxtaane ci Ndakaaru moom la ñuy waxtaane ci marché yi kon ñoom am nañ ci dañ ko war a dox suñ ko yëgee ak suñ ko yëgul barke alxuraan looloy bu ñu teree ñu wax ko ci groupe bi it foo dem ci grand place yi looloy waxtaan bi gis nga sëñ Abdou Mbacké sëriñ Sonko boobu dëkk Daaru Musti waxoon na ko de nee lii ma gis bu ci sëriñ kilifa diine yi teelu dana yàq diine day yàqu taalibe barke alxuraan wax joojee mooy dëgg kon dañoo war a wax dañoo war a jóg te seme trop tard dara weesoogul fi mu nekk nii ba léegi mën nañoo jóg nguur si dellu gannaaw bàyyi Ousmane Sonko mu libre bokk ci élection yi nekk ci seen njabootam dara weesoogul su fekkee wax nañ ko ko mu lànk ñu génn officiellement ñoom nii ñuy doxee boo ko seetee day mel ni na sëñ Fallou daa doon doxee ci jamonoom dafa baaxul wala na na bàyyi laat doon doxe ci jamonoom dafa baaxul noonaa gën nii ñuy doxe noona dafa baax bay bëgg a dee te dañ doon génn di wax ak président bi officiellement liñ bëgg dañ koy wax directement wax woo rajo yi wax ko ci sëñ Fall noonu la doon def bàyyi la doon def sëñ Saliou mi fi toogaat xalifa ci ginnaaw bi mu ñëwee la muy wax it da koo wax ñëpp yi dégg lu dul diine ji awma ci defar awma ci yàq te lam nekkoon ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp ko gis loolooy dëgg gi te ña te yàlla dogal nag tam fi jamonoon tel nit ñi doon na amoon nañ seen bañ di bañ waaye yu ñàkk yu ñàkk teggin yii ak yu ñàkk warma yii ak yu ëpp yii Ablaye Wade defu ko woon ci jamono yi sëñ Saliou te Abdou Diouf mii ba fi tëjee sëñ Saliou ba fi tëjee euh, euh, kii nu mu tëddee ba mu fi tëjee Ablaye Wade sëñ Saliou nekk fa di ñaan muy bañ ak muy yii daa yónni sëñ Moustapha Saliou mu dem seeti ko ca kaso ba ba mu ko seetee ba génn ci buntu prison bi journaliste yi kar ko dëpp ko ay micro mu wax ca kaw la muy wax def declaration ñëpp dégg ko ca saase la Abdou Diouf daal di bàyyi Ablaye Wade ah njiit day jël responsable sëñ Ahmadou yi wax na ko ci ay xutbaam waxati ko waxati ko waxati ko képp koo nga xam ne yaa jiite danañ la laaj li nga jiite woon parce que nangu woon ngaa jiite te lii ku jiite askan wi taalibe yi ñuy rey ak ñi ñuy fitnaal ñi ñuy yàq seen i alal ñi ñuy kar seen i camion di ko taal ah ñi ñuy yàq seen marchandise ñi tax ñin fexe ba ubbi woon seen place te fitna ji waral ko ñoo ñëpp yaay seen kilifa yaa leen responsabilité nga ni ci patt ku waxul lii wax la ca des gis nga ak taalibi fi ñu ko bëgg a yóbbu léegi dafaa niwut nit ki di wax xalaatam wala muy waxu dëgg ñu ne amuk taalibe loolu du dëgg loolu du taalibe ak taalibe niwut foofu dëgg yàllaa ko moom sëñ Tuubaa ak taalibe sose wu ko nii doxaliwu ko woon nii da doon wani taalibe yi yàlla suñ borom la leen doon wan xiirtal leen ci fexe bañ nangoo jaamu yàlla dong bañ ko bokkaaleeg dara fexe bañ yeewu fexe ba kenn du leen nax ci diine kenn du leen nax ci àdduna fexe bañ mënal seen bopp fexe ba kenn du leen yilif ci notaange Sëriñ Tuubaa loolu la xëcce woon ak taalibe bu ñuy wax tariixa tariixa du lenn lu nammaat yoonu yonente bi su naam si nga teg ci nit ñi fexe ba tega ca looloo du tariixa waaye ab tariixa du fexe ba gëm nit ki ci boppam nga gëm ko ba luñ ko waxal tamit dëgg rek nga nga nga ni kenn waru koo wax déedéet lool Sëriñ Tuubaa wuti wu ko woon suñ tubaab dëgg la jëloon teg ko dëgg rek la jëloon teg ko waaye léegi nit ñi liñ bëgg a def ak taalibe mooy boo waxee dëgg jëmale ko ci kilifa tamit dëgg kenn mënu koo dindi ñu ne da ngaa ñàkk teggin wala waroo koo wax lool loolu moo moo di taalibe loolu barke Serigne Bamba du taalibe nit ñi nañ dem jàngi diine suñ tubaab téere yi bind teg ko fi dafa leer nañ dëgg génn la yàllaa ko moom nan leen waxante dëgg gi kilifa yi kenn mën leen a ñàkk impliqué ci mbir mii di am nii faaw ñu leen ci parce que seen yoon a ngi ci ah genn nopp gi nag du maanu du ak ragal yàlla yenn nopp yi ci mbir yi di xew laa ni yi yiñ ci noppi genn noppi gi du maanu du ak ragal yàlla ak par par loola gis nga nguur la ngay wax ba mu ger la nga lekk ay yëfam munoo ñàkk a wax lu ko arrangé mbaa nga noppi yenn parti yi loolu rek lay niru kilifa yi àdduna yii surtout rawatina yoonu murit dañoo doywul dara gouvernement doywul dara yoonu doywul dara nguur doywul dara gouvernement doywul dara président luñ bëgg murit nañ ko kilifa yi yoonu murid yi luñ bëgg rek murid yi mënal nañ ko seen bopp mën nañ leen koo defal waaye na fekk ñu def li ñu war a def di wax li war a wax nekk ci li war a nekk luñ bëgg rek soxlawul ñu koy gouvernement buñ murid yi takkutoo ñu laaj mën nañ ko taxawal jumaay Tuubaa ji dërëmub état demu ci jumaay Tuubaa ji laa ni dërëmub état demu ci te amul tabax bu ko gën a seer fii ci réew mi tabax bu ko gën a seer ci réew mi taxawu fi laa wax Sénégal ba mu daj tabax bu gën a seer jumaay ji taxawu fi dërëmub gouvernement demu ci nañu def ba taxawal loola mën nañ koo def ba taxawal lépp luñ bëgg tali dëkk yi luñ bëgg ci dëkk bi ma murid yi mënal leen ko seen bopp lu ñuy doyee gouvernement ba mu ne ba mu xoj leen ba ba ak dëgg jotee wala ñuy sonal seen i seen askan seeni i taalibe wala seen i njaboot duñ ko wax wala ñoon seen njaboot ñu sant Mbàkke rek la loolu rek la bu dee lool nañ ko wax ñu xam bu dee loolu nañ ko wax ñu xam jumaay sëñ Tuubaa ji buñ ci génne woon ñàkk ko sant Mbàkke du ci yàq dara du ci yàq dara maa ko wax luñ fi def rek ñaqu taalube la ñi sant Jóob Fay Njaay Xumma Sekk Jaw Faal bu dee am mbay ñoo ko bay dugal ci bu dee ab ab dërëm ñoo ko commerce dugal ci bu dee cotisation ñoo ciy man lépp ñoo ko joxe nañ ci génne loo xam ne mbàkke màkke bi daa dem di jaayante di di jaay jënd yokkal ma jaay la ba ba mu leew ko domm mu ñëw dugal ko ci ci liggéey jumaa ji wala loo xam ne daa dem ca tool yi di jàpp machine ak a bay saa ab donga sans ab taalibe buy laxasaayu moo bayal boppam ñaq boppam bu xuur xuural ba tool ba booyut mbay ma nangu mu jaay xaalis ba jaay mbay ma ñëw dugal ko ci jumaa ji dama ne loola laa wax bu ñu ko génne woon ci ci ñuy sant mbàkke laa wax ji dara du ci lu néew a ciy deñ lu fi taxaw taalibe tey ñu ngi nii di sonn lépp gàllankooru ñëpp ne ci fitna ñu mel ni dañ koo yëgut ngeen ni duñ ko wax buñ ko waxut tamit moo ne ci xel yi te grand yi moom la ñuy wax moom la ñuy waxtaane Ndakaaru ak Tuubaa ak fépp ci yam moom la ñuy waxtaane lii di xew nii day yàq ak taalibe ñun ñii loolu lañuy ñuy bañ loolu la ñuy tiit looloo ñu tiital ñun ñi seen ngëm ci pas-pas ci sëriñ bi dana wàññeeku loolu lañ leen di bañal ay man mii di wax ak yow dëgg dëgg murit laa yaakaaruma ku dul sëñ waa xam naa ni fan jëm ëllëg mën a lu ma fa sama bopp dara sëñ bi dong laa yaakaar bëgguma kenn yàpp ko